ñu génnee dara tegaat gàllankoor sa kaw boo fexee ba jàll ko ñu génnewaat beneen daal gàllankoor ay tappale élection la. ay waxi ñaawlu ak mer yu tukkee ci candidat yi jàllul tey ci ajuma ji conseil constitutionnel amal na bésam bu mujj ci contrôler parrainage yi amul benn ci fukk ak ñeent dossier yi ñu saytu bu jàll état bu parenage yi. ñoom ñooñu ñu jàpp ni li waral loolu mooy manque de transparence. yii nag mën na mën na jur ne. te jàpp naa ne sax bu ñu jógee fii tey ah processus bi yëpp dinañ ko dinañ ko arrêté te xaaraat itam defaraat loi bi parce que loi parrainage bi ah, dafa bëri ay rëq-rëq yoo xam ne mënuñ ci dem élection. loolu yëpp mën a jur ñàkk kóolute ci processus bi ni muy doxee. lu ma mën a wax en tant que mandataire mooy le fichier bu conseil constitutionnel di liggéeye n'a jamais été éprouvé. par les mandataires ça veut dire que mandataires yi mosuñu leen si defal démonstration mandataires yi mun si mun ko tester avec seen informaticiens yi mais puisque ku am pouvoir de décision mooy conseil constitutionnel dañoom ñoom décidé nañu que suñuy parrains yi nekkuñu ñu bi pour 35 pour cent donc ñun loolu la ñuy mën a jàpp. si juróom-ñeenti fukk ak ñett candidature yu déposé commission de vérification des parrainages juróom-ñeenti képp la ci jàpp. candidat yi nga xamante ne dañ leen a gàntal. jàpp ni processus électoral bi dafa lajj ba noppi ndax bëri ay rëq-rëq yu ñu seetlu